population mooy développement ça veut dire que sa population lu mu gën a bari. na population rek du développement parce que Sénégal 18 millions lañ. alors qu'on est ah, mais attends mais moom laa lay wax il nga comprendre man la population mooy développement ça veut dire que lu sa population gën a yaatu. Hmm. sa consommation gën a bari. consommation mooy indi développement ça li ngay consommer waaw consommation mooy développement de man lu may sol tey jii lii ma sol nii tey ak yow li nga sol ak kii li mu sol ak yow li nga sol. bu fekkee ne que ñun lépp li ñuy sol ci réew mi dañ koy jéegaane ji bitim réew du ko indi ci réew mi du ko sol yow yaa ngi consommé woo ko. waaw man consommé wu ma ko. mais loolu àndul développement. non ah, ah allez-y allez man consommé ko yow consommé kii consommé ko yow consommé nga ko mais est-ce ci réew mi lañ ko defaree. mun nañ ko defaree si réew mi comme mën nañ ko bañ non mais ko produire wulee ci réew mi yow yow da ko consommer rek ça veut dañ ko commercialiser jaay la ko rek mais produire woo ko ci réew mi defaree woo ko defaree woo ko ça veut dire baaxul ci réew mi waaw mais loolu du dox ça veut dire réew mi yow tant que yow te réew dafoo taxaw seetlu ni man lépp lu sama population di consommer muy lekk muy naan muy solu muy dàll bi ngay sol kër yi ñuy tabax lépp luy consommation lépp lu ñu utiliser tout ce qu'il y a service dans notre pays danga koy jéegaane ji bitim réew. di ko indi ci biir réew mi pour mun koo consommer fan ngay créer emploi. fan ngay fan ngay ah. même la santé. même la santé ba ci santé bi. ça veut que tey jii amut fenn amul benn ma benn secteur d'activité. Mhm. boo xamante nii rek lii ma yor. Mhm. lii daan la. mouchoir mouchoir. wala nga ni serviette bu ndaw. serviette lii serviette bu ndaw bii. da nga koy jéegaane indi ko te lii lan moo ci jafe ci liggéey dagg om surflé. matière bi. matière première bi. matière première mais am na wëñ bi ak puso yi. affaire yooyu waaw mais puso te doo ko fi defar. waaw puso kenn defaree ko ku defarul puso sa réew. amuñu ay industrie waaw mais très bien nag maintenant industrialisation la ñu am foofu. très bien nag léegi nag yaa ngi doogay ñëw nag ci li nga xamante ni mooy su mooy suñu problème ñun. mais mais lan moo tax ba état bi mënul investir ci industrialisation justement. waaw parce que état bi industrialisation boobu ci la war a jëm ça il faut ñu def rupture il faut ñu taxaw ça danoo nanguwut ñun. il faut ñu am benn moment boo xamante dañuy taxaw ni faw nag àla kulli àllin état bi taxaw ak sénégalais yi wax ak ñoom ñu leen ah fi ñu toll daal yéen a ngi wax développement rek boobu ba tey ñëpp ngi naan liggéey liggéey liggéey nit ñaa ngi naan développement développement. Mhm. te yow sénégalais bi yow bëggoo benn rupture am dara yow bëggoo dara am rupture. nay continuer rek yow da bëgg yow. Mhm. yow soble bi di doy. te yow soble bi li nga koy bayee matut yow bëgg nga ceeb bi mat bëgg nga diwlin bi mat bëgg nga lépp li nga xam moom ngay dundee mat ci réew mi. te yow yow yow defaree woo ko ci réew mi bayee woo ko ci réew mi produit ko ci réew mi